mu demee. naka bu ça va. ci loo nekk. sant yàlla bu baax. waaw maa ngi si jàmm mais ngi la fekk ci ci ci match bi tey match bi nga xam ne moom la Wally sekk rek euh, di war a amal ci diggante bi ak Modou Lo quand noo noo noo ko paree parce que yow yaa ngi ci match bi. waaw mais ñun ñëpp ñoo far àdduna mu solo. Uh-huh. waaw dëkk Almadies ak dëkk fii dëkk Nord Foire ak dëkk Pikine ci yem. dañuy far rek du dëgg. Uh-huh. waaw ñun ñëpp ñoo far barki Serigne Sall àdduna mu solo te Wally moom Wally ñëpp la quoi waaw dëgg du neex sotti ceeg jëf la rek bëri ci sénégalais jàpp nañ ni li nga xamante ni yaa ngi koy def nii tënd la alors noo noo ko noo ko jàng dara tëw ma mais la fañ yaa ngi daw de sànq maa ngi lay introsé ngay daw. non daw ma sax <laughs> yaram bee tàng rek ma doon dem ci échauffement bi waaw. <laughs> waaw mais ñëw fubal rek <laughs> ñëw fubal rek amul waajal amul dara bat si fubal kay foo romb ngi fubal. Uh-huh. fubal bi tey kap fooree la dëgg du neex. ah ngeen di def lu nice jamono ji ci TikTok bi sénégalais yi di ko apprécier Euh, ñenn ñi di critiquer euh, noo jàngatee loolu. mais jàkk eh, ñàkk a jàppee sëy sëy bi lu sérieux rek ah waaw ah, mais bien sûr sëy boo ko jàppee lu sérieux yéen ko da ngeen di dëkk ci ay problème kii di xëcc fii di jaay kilifteef kee di wane ni waaw man waroo maa yilif man ak moom ay wéruñu xam nga ñaar dof fu doon romb ñuy xuloo man ak maanaam wéruñu ay ñaar dof lañ. non non loolu loolu lañ loolu lañ fi am quand même waaw. li ma xam nga ay mala doo leen romb raar ngay romb ay mala yu xuloo man moom ay mala lañ jàppee suñu bopp wéeru ñu yëpp daf la ñuy def ay mala lañ jàppee suñu bopp. production bu bees comme. comme dugguñu ci série de. dugguñu ci dara. ñun noonu la ñuy dundee waaw dëgg du neex moom sax bëggul woon di feeñ au début mais man maa ko dugal ci loolu parce que li may dund loolu lay dund yaa waaw bu may def yëfu dof wala ma am nu ma nu ma nu may dundee dama dama ci yar sama jabar. voilà waaw am ay retour. retour waaw Sénégal fii moom <laughs> dëgg du neex fi lañ juddoo yaa ma gën a xam li fi xam loolu du loo may laaj du dëgg waaw. Euh, sama yoon newu ci sama yoon newu ci. ah mais ñooñ ñooñ critiquer ñoo ñoo lafañ man lafañu ma. boo demee maanaam ba sa xel manqué ba nga war a mën a jàkkaarloog Lafagne VIP ak ni mu positifé di wane une bonne image du Sénégal nga danga koy critiqué yow yaa Lafagne moom Lafagnul waaw. kon xeer sama yoon newu ci. sama yoon newu ci. mukk ci àdduna. aw ma seen jot. Lafagne yi laay xeexal. sama sama sama sama mag la. sama mag la daf may tiitaroo di ma safoo. bari na fi ay musiciens mais moom moo ci koo xamante ni maanaam dafa jël lafañ yi teg leen ci kaw ñu ñëwal ko rek àdduna mu solo nit ku ma bëgg la te daf may tiitaroo man du dem fuñ may xeebee ci adduna yeah waaw fii nii man rek nga gis comme lafañ may ñëw di football ah waaw ah mais damay football lan la benn tànk laa yor xelay football du benn tànk de ah waaw mais am naa moyen man dama am quatre quatre quatre quatre quatre ñaari beeke benn tànk ak xaaj <laughs> ah waaw ëppale naa leen kay man pointe dama fa ma juddoo maanaam ñun dañoo yaroo ci football ña ma doon àndal xale ñëpp ñëpp signé professionnel mën naa ci tuddal ñu bëri barke Serigne Saliou ñun fan juddoo ci football rek la ñuy dox moom xam na li may wax sax jaxaaw Thiès équipe boobu koo xamul dégg nga ko fa lañ juddoo fa lañ yaroo rek mooy suñu métier du dëgg waaw dañuy ñëw fa rek àdduna mu solo waaw mais moom nan nan moom nan na ci jàmm rek nit ku baax la quoi man sama soxna parcelle la dëkk donc damay bëgg waa parcelle donc bu ñu organiser bés bu demee nii damay ñëw football yeah uh-huh. non dañ ñeen i dóor sax te damay dugal ñaar uh-huh. waaw léegi léegi jaajëf Amat.